mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ci ndigalu Serigne Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér karawaan yomba topp jaar-jaari Xaadimu Rasuul ca Gabon ci taxawaayu sëñ Koso Mbacké Mountakha ak sëñ Cheikh Na Bousso ànd koog jëwriñ ji sëñ Cheikh Mbeng Baye Fallou Mayomba njabootuk sëriñ Fallou Bousso Gabon ak mbooleem taalibe yi nekk Gabon ñoo yëgal njabootuk sëriñ Touba gépp ak mbooleem jullit mbooleem taalibe yi nekk Sénégal ak bitim réew juróomeelu édition doxaan topp jaajaari Serigne Touba ko fukki fan ak ñeent jàpp ñaar fukki fan benn ci weeru juillet atum 2024 bi nii lay tëddee jóge Libreville dem Mayomba jóge Mayomba dem Lambaréné muy bërëb yi mandargaal liggéey bu rëy bi nga xamante ni suñu jàmbaar ja Cheikhul Khadim liggéey woon na ko ca Gabon ku bëgg a bokk ci caravane bi ak foo munti nekk ci àdduna bi mun ngaa woote bu dee Sénégal ci 77 541 84 37 wala 77 478 26 35 bu dee bitim réew bu fekkee danga ngaa féete ci yeneen i réew ci Afrique mun nga woote ci 00 241 07 65 88 16 wala 00 241 62 99 99 13 boo féetee ca Amérique mun ngaa woo Serigne Demba Ndiaye ca Washington ci 001 202 643 63 23 boo nekkee ca Europe mun ngaa woo Serigne Abdoulahad Gueye ca Rome ci 00 39 353 368 87 21 wala email caravane mayomba en minuscule arobase gmail com wala si plateforme réseaux sociaux caravane mayomba inscription yi si caravane bi ñu door ko fukki fan ak juróom ci weeru avril di ko wéyal ba fanweeri fan ci weeru juin atum 2024 li Tuuba waaw daatu jismi waaw daatu xalba